bonheur à tout instant. Nujaye bonne Sune à Soune. Avec Iliflex, c'est toi qui compose ton Ilimix. Plus d'appels ou plus d'internet, y choisir. Flex Orange. Soclin technologie bu ngir Milkana, la force du lait, la force de l'amour. UKO Saint-Michel, révélateur de talent. Royal Horizon Baobab, fil free, fil home. Téléphone 33 939 71 71. Adresse Route des Hôtels, Saumon. Boîte postale 81 Bourg. M60. There was something what best. They gonna scold when you point from I. Il faut vraiment que je fasse quelque chose pour attirer l'attention des si conséquences pollution et réchauffement climatique, insalubrité et manager. Parce que franchement, la nature nous donne tout ce dont on a besoin. Et malheureusement, Niti que si on l'utilise à mauvais escient. Oui, tu as raison. Mon je peux t'aider en confectionnant des visuels via Photoshop. Mais pour mon marché, il faut mon une communication pour solide je me sens inutile. Alors que je veux appeler aussi la sensibilisation. Mais je ne sais pas comment la Ne T'inquiète pas, sois pas pressé, on aura besoin de toi. Euh, Bix Bix kaay <laughs> alhamdulilah rabbil waaw Bix. <laughs> yée léegi changé naa tuddatoo bi gi Bix <laughs> sëñ bi kay nee na moom lu tur bi gën a léger gën a baax moo tax dama ko woyofal ah sama doom ji namm naa la nag naka yi tey nag. waaw oh, alhamdulilah. bu ma lay xool rek. sama xol bi day gën a day sama xol bi day mel ni wanagu mbott. moo tax fi ne deel gën a góorgóor di lekk xam nga ñun famille yàppaat souci moom. famille bi dafa war di développer <laughs> yaa ngi am jàmm. alhamdulilah. bëgg naa nag ñu ñu yaatal ci lu bari ndax da nga sama doom amuñu nëbboo lii nag moom yow rekk laa ci yaakaar te luy jot jot na. te liñ naan sës nañ ci miiru wis bi sër nañu fa moo tax ma ne naa waxtaan ak yow wax la nga xam ko loo xamante ni yaakaar naan sax su ma la ko waxee du dis ci yow te du metti ndax xam naan mi ngi sa xol ba noppi hmm, balaa may wax dara sax dama naan la félicitation. xanaa ma taxal jabar dëkk <laughs> ah déet déet déet déet déet déet euh, am nga combat. combat bëre <laughs> yi lan bëre yi lan. Eh, man bëréew ma de bëréew ma moy waxe lan yow eh man jël na avance ba paré de ba jëlé avance man bëréew ma de man duma ma en plus école léegi mu tijji damay jàngi té bëgg lay def ren inshallah allah fafam dinaa mën a jël bag boole ak ay carrière de bëre gi yooyu noonu ah papa lolou mënul nekk de day metti ci man de en plus te du ma tere bëre mala téré won bëre waaye yow yaa ma dugal ndax yow yaa ne ma fi mu ne nii fokk ma bëre ma tegg la ma sama baay maam njambaan waxoon te mënoon naa ko teg mais yaa tax ma tegg ko te bu ma xuusee du ma arrière xam nga lu mën a bëgg a xamal mu neex la mu naqari la da ngay bëre far force falaayam nag Binta Binta naam eh fi yow mais gaawal. yow kan moo defar sama néeg sa nekk man maa ko defar tey tonto. yaa ko defar. waaw. ana xaalis bi ma bàyyi woon ci biir. xaalis man gisuma fa xaalis de tonto. dama ne xoolal sama xaalis yow yaa defar néeg bi ba pare nga ni gisoo sama xaalis bi ma fi tegoon fan yii nag maa ngi remarqué nii ay sàcc yu ndaw ndawaan mi ngi am ci biir kër gi ngeen foog nii nag yëguma ko mais sama 700000 nag jël léegi sax. jëlal say bagage nga génn ci biti parce que man duma ma dëkk ak sàcc gawal nak tonton man duma ma gawal nga génn say bagage ci biti nga dem way kenn daa ma sa gis li c'est pas possible. te li may gis nii boy, liy raam nii sama père booy si yoonu sacrifice sama jàng moo lay wax ni imagine toi booy paa bi dem jëli avance su jàmbur te man xaw ma sax kan laa war a bëri barki yaa non booy loolu moo ma dal instant bi nii sama papa daf ma mere booy ma sax xool man damay laaj sama bopp est-ce que joroon na may may dem suma su ma soñoon naa damay dem école de football ba football ñëw toog quoi. parents lii la a bàyyi noonu de. ñëw dund seen dund booy ni mu waree. ba pare bëgg a dund suñu bos. te normalement ñoom ñoo ñu waroon encouragé pour ñuy jàng de. mais boudé le contraire bay tamit mooy loolu yëpp deug la mais saa bi ni sama lex bi batay ma ngi sentir mbéj bi ma sama grand frère bi mbéj biti loxo la ma def til bëñ yi ne côté bi ñoo ñëw côté bi. non bu naa ko wax depuis sànq de. yi ma jël ki da dur contre la la la mère yo kon da ngay retane ni. ah nu may def ba du ma ree

la laaj sa papa xam naa dematina doxaani rek waye bàyyi ko man bu mu ñow fi ni mu ndawé non la baree solo hmm. musuma gis li ko xamantene amu benn si bopam. ay xalé yu ndaw lay fréquenté di vacances tek bopam xalé bu mu fekk ma fi ki sama ak bu ko dalé du sax baax si moom. tok chérie ça va bébé qui va jouer aujourd'hui

que sa soit la dernier fois nga may wax li sama kanamu doom dégg nga ma wala nga bëgg xaay sama sutura. next su dee loolu nga yaakaar nga baal ma na dama gis ni que bi nga jógee Somone ba tey lu jëm sa waxu école waxoo ma ci dara dama doon laaj donc. mais inscription bi liggéenti naa ko pare boo gisee waxuma la dara ci fourniture yi c'est parce que bëgguma la woon sonal. xanaa sonal la ti next bu ma wax loo waaye dama lay jàppale rek loolu du benn problème mais xam nga la laay bañ. nga si teg doxaan te xam naa foofu nag lañ nar a rayantee. man wax naa la nga bàyyi loolu à chaque fois une deux trois nga commencé fi sulli encore ay problème loolu passé na man su moom dama fa demoon uniquement pour spectacle de danse dema fa woon pour lu ñàkk fayda. voilà ñooñ nag nga war a bàyyi école rek ngeen bokkoon waaye yàlla mag fuuf next góorgóorlu année bii nga passé ndax papa bu duggee école nga nekk école ci banc yi ngay préparer ouverture muy préparer ouverture ngay couvrir ay cahier muy couvrir ay cahier loolu nag sa gàcce la te man duma fi nekk di jënd fourniture baay ak doom. man yàlla ma yàlla suturaal yàlla ma yàlla may ba mu mënal sam bopp yàlla baax papa kañ demal sax comme yow lu ma la wax du la saf. njogonal desul si kër gi. Alors papa, comment tu vas Ça va. Merci les gars. Ouais, ouais. Euh, dis papa, Zainab, j'espère qu'elle a du mieux. Oui, oui, elle va beaucoup mieux. Je crains que mon histoire avec Zainab ne soit de l'histoire ancienne. n'est pas nécessaire d'en revenir ma fille. Sache juste que c'est fini et c'est mieux ainsi. Dommage. comment ça se passe avec tes parents Hajoun Haidra, toujours pas de changement. Maïcha, de toi à moi, je regrette d'avoir choisi la musique. Je sens que je perds mon père. Maïcha, une kër gi foofu dugaan ambiance nga fiy fekk say soo ma fekkee ma toog sama papa nga may fekkee ma toog mais faaleetuma waxul ak man même argent de poche joxatuma ko Maïcha. à ce point. Tu ma ko waxee xam nga la may amal ko sa bopp wala musique bu jox la ko. je vis l'enfer dans ma maison franchement ma de ma mujjee sonn ça. mais mais Fatel mais toi combien de fois dois-je te le dire hein a nga nanta tal clim tal télé en plus net ci ordinateur loolu lu mu mën eh? xam ne que ce soit la dernière fois ma je ok fii gisoo tàngaay bu ba tax ngay le courant est je te parle non a tout instant. nu jaay bànneex saa su ne